Avança, Lumuna, mun a sénégalais wala sénégalaise ba mu yëg boppam ci le président Macky Sall jaar na fa ak ñoom mënul jot les 14 millions de sénégalais mënu ko ñu ne ko ñun ñii nga xam ne dañu takkal ay ndombo te xalaatuñu xalsetuñoo laal kopparu réew mi dina jël suñu alal wesaare ko ci réew mi jàppale la ci sa programme boobu loolu moo ñu waral ñu teg fii tey di séddale ay kado ci xale yoo xam ne xëy na seen ngiiru dund narulu ñoon musuñoo jot benn kado loolu c'est moo waral suñu daje bi tey dañ koy def nag pour inspirer suñu moroomu politiciens ñu bàyyi seen coow li te liggéey ku ci nekk ci ñoom amul kenn koo xam ne amoon nga réputation balaa la président di Macky di jox benn ndomba tànk du kenn ci ñoom a ko amoon suñ leen xamee tey suñ leen mun a dégloo tey C'est ndomba tànk tax ñu leen di déglu té koku kiko def moy le président Macky Sall amna luñ ko yoreel ci 14 millions de sénégalais 150 la ci jël yobbu conseil économique et social kenn ngi ni suma wé jël ci lu matul 160 yobbu à l'Assemblée nationale mu jël.

14 millions de sénégalais ñu jël ci la dugal la palais ngay gis président di toog ak moom yàlla may la nga koy wax mu lay déglu kooku kuñ ko defal war nga am ngoru kala ko defal nga xam mooy kan waaye nag kuy naan ci bistro ba mandeegul xàmmee goo ko lay xelil nañu delloo xel yi jàppale la président mati Sall liggéey mi ngi def ay programme yu musul au Sénégal ay autoroutes, ay logements sociaux ay liggéey microcrédit pour les femmes bourse familiale etc. les programmes sont vastes et larges C'est est la concentration d'un citoyen ci ce que nous devons a Astour, astur li nous am ñu jàppale ko ci gox yi nga xam ne foofu la ñu ko lolu moy gor lolu moy jàppale le président Makisal, Sall c'est un privilège un honneur un honneur pour être élu ou nommé par le président Macky Sall lolu dañ ko ko wara dello delloo nañu dello ci xel yi nañu dem ci yi dem ci base expliquer les programmes du président Makisal, Sall lolu moy deug leneen luñ ci ambition ñëpp ko war a am waaye ambition dañ ko wara orienter dafa am waxtom pour wax ko ki nga xamné defagul juróom-ñaari at ñi commencé xëccoo ñiiroo ngaayo lu nekk ñu koy dégg nañu dalal xel yi nous sommes des responsables Sénégal la ñuy xol Sénégal ñu ñuy déglu Sénégal ñuy sétane li ñu nekk ci parti bi du yoon li ñu nekkee ci parti bi du yoon nañu delloo xel yi xam ne dafa am koo xam ne ba ñuy dem dañ ko woo suñu kanam ne ko yaa ñuy jiit confiance boobu nag ñu ko joxoon ba léegi waru fay deñ ndax musul def kenn lenn loo xam ne war nga toog di ko ŋàññ wara di ko di ko di ko di ko jàjj nañu delloo xel yi te liggéey